te Cheikh Oumar Foutiyou Tall nag. sëriñ bu ko ëpp wërsëg bëriwul. waaw ku amul wërsëg la. Cheikh Oumar Foutiyou Tall. sëriñ bu ko ëpp wërsëg bëriwul. boo ci demee ci boo demee ci aljawaahir wa durar mm-hmm. ci eh, eh, eh, carmu tagaataal bind na ko mm-hmm. bi mu nekkee bi mu nekkee Guinée Conakry mm-hmm. hmm? boobu commencé na jihaad bi mu nekkee dingiraay dingiraay bi mu fa nekkee mbooloo bi mu yoroon rek mbooloo bi mbooloo bi mu yoroon di leen dundal chaque jour bu ñu bu ñu bu ñuy yàq ci këram. Hmm. Eh, eh, maanaam ndab juróomi téeméeri ndab la ñuy yàq. te ndab bu ne juróomi nit juróomi góor ñoo ciy toog juróomi nit ñoo ciy toog juróomi téeméeri ndab chaque jour moom la ñuy to moom la ñuy yàq ci këram. te te te te ba ne la ndab bu ne juróomi nit ñoo ciy toog. allahu akbar. kooku mun nañ ne woon amul amul amul wërsëg. kii war na jéggi na de. donc beneen affaire donc jagle yàlla jagle yàlla. waaw loolu loolu xam nga loolu jagle yàlla la. Mhm. Ah. te ñëpp lay defar. te ñëpp. ci wàllu yàlla. ci wàllu yàlla. Mhm. Eh, te ànd ak loolu yëpp. Mhm. Eh, jihaad baa ngi fa. jàngale baa ngi fa te jàngale kat la woon. jàngale kat la woon. Cheikh Umarul Fuuti. Cheikh Umarul Fuuti. li muy nekk ci xare bi yëpp da doon jàngale. jàngale tamit est-ce que. di maye tarixa bi di maye tarixa bi. di di maye bi donc li mu yaatal li mu yaatal ci tarixa bi. Mhm. dafa bëri bëri bëri bëri ba nga xam ne. Mhm. parce que ba tey ci jamono. Mhm. gis nañ ni. fépp foo xam ne ñaanam daloon na fa rek. ba léegi mu ngi des. waaw waaw bëgg nañ nga ñëwal ñu foofu sax. Ah. doguñu la mais. Ah. am na place bu ñuy dégg Gàmbi. Ah. Euh, tur wi laa dese. Gunjur Gunjur. dégg naa jaar na fa. Gunjur. Euh, Casamance am na bërëb bu ñuy tudd. nee nañ jaar na fa. waaw ba côté Tamba. Mm. ba ci mbaaw gii rek. Mm. am na fu mu jaar. benn place donc loolu naka naka nga mën a jàngatee Cheikh Omar fu mu jaar rek mu nekk bërëb bu barkeel. nit ñi dafa ziar place place moom bi mu jaar Gunjoor. Mm-hmm. place bi mu jaar Gunjoor. Mm-hmm. man moom yàlla def na ni place boobu. Mm-hmm. ñëw naa ba ci place bi. ziar si naa ci place bi. mu ngi nekk dëkk bu ñu naan Gunjur. Mhm. ci tefes gi la nekk. ci tefes gi la waaw ci benn xeer bu mu doon toogee mhm. toog daan jaamu yàlla. Mhm. Ah, di fa def ay awraadam. def ay xalwaam. ba léegi place bi mu ngi foofu. yàlla dogal na ni président Gambie bi jógee Yaya Jammeh. moom moo tabax place bi. tabax ko jumaa ju rafet. mu ngi foo chaque fois boo fa ñëwee da nga fa fekk ay nit. ñëw di ziar si. Eh, bërëb bi bërëb la boo xam ne nag bërëb bu ñaan di nangu la. Mm-hmm. nee nañ Cheikh mm-hmm. Oumar Foutiyou Tall bi mu nekkee foofu. Mm-hmm. Euh, kii bu mu yoroon. ñu naan ko ci pël caamaa ba. Mm-hmm. no benn jaan bu mu doon àndal bu muy def jihaad. moom Cheikh Omar moom Cheikh Oumar Fouti benn jaan bu muy àndal. Mm-hmm. Eh, noonu ne jaan bi fukki bopp ak ñaar la am. Mm-hmm. ci suuf la doon suuf la doon jaar. ci suuf la doon jaar. dëkk bu mu jéggi. buñ fa foofu. foofu buñ fa jihaadee. foofu ñooy. ñoom ñooy gañe. ñoom ñoom ñoom ñooy gagné. donc euh, euh, nee nañ foofu jaan boobu ñaan caamaa ba. ci gunjuur foofu place boobu. fa la jaamu yàlla ñaan yàlla. ba kii bi génn ci géej gi ñëw. fekk ko foofu fee fekk ko foofu. waaw boobu mu ngi ci moment xare bi. Euh, moom moo ngi ci moom mu ngi ci moment xare bi. mu ngi ci moment xare bi. waaye place la boo xam ne place bu nangu ñaan la. Uhuh. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen place. waaw donc moom noonu la noonu la yaatalee tarixa bi hmm. parce que mu génne rek balaa mu fiy génn am na fa ay muqaddam yi bëri yoo xam ne hmm. bàyyi na ko hmm. am na ay nitu yàlla cer Cerno Saadu euh, Dale foofu la fa la fa la ko fekkoon ah. nekku nitu yàlla bu mag ñoom ñaar am lu bëri lu dox seen diggante Cheikh Oumar Foutiyou Tall bu mu ñëwee Guinée bu mu ko fekkee foofu mu nekk nitu yàlla bu mag ñoom ñaar ci wilaya. Euh, bi ñuy dox. ñoom ñaar ñuy def promenade. ci àll bi ni di waxtaan. am benn xale bu nekk ci àll ba soo toog ci suufu garab. Mm-hmm. yore yore àlluum. di jàng alxuraan. Mm-hmm. waa bi ñu bi ñu doxee ba si kanam rek. Mhm. seen seenu saadu dana def ne ma. Mhm. mu ne dama dafa mel ni de xeeñtu naa alxuraan. Mhm. waaw eh, maanaam ngelaw alxuraan. mu ngi ñëw ci man mu ngi may mu ngi may xeeñ. Cheikh Umar Foutiou Tall ne ko. te alxuraan boobu di la xeeñ ngelaw boobu di ñëw suuratu yaasin la. suura suuratu yaasin la mhm. ndax nañ continuer di dox di dox di dox di dox ñëw ba ci suuf benn garab mhm. am am benn xale bu toogoon foofu mhm. mu ngi yoroon alluwe di jàng ñëw ba ci moom jël alluwe bi xool mu nekk suuratu yaasin <laughs> mu ne mu nekk suuratu yaasin nee nañ moom